di sëñ Modou mii nga xam ni moom moom la ñuy siyaara si bi ma jógee ci sëñ Modou Habib laa jawal si fii yàlla def nag li nu seq moom xam na ko bu baax ci sunuy waajur la woon ni mu ko waxee rek ci Cheikh Abdou Lahad la deme ak cofeel gu rëy ndax ni sëriñ bi doon doxalante ak ñoom defu ko nun ñi nga xam ni nun lañ wax sax ni nun la jur ngir cofeel gu rëy gu amoon ci diggam ak sëñ Abdou am ci yoo xam ne sax mbirum baatin la duñ ko sañ leeral waaye li tax mu fonkoon sëñ Abdou li muy doon doon kilifaam dafa xam ne sëñ Touba meloon ci sëñ Abdou ak ak ak ak mbëggeel ga ak fam ko tegoon ndax man nga ni menn moom képp ci doomi sëriñ bi moom la sëriñ bi dëkkaale ci biir kërug boppam amul ñaareel <laughs> loolu moo ko ci am ngir cofeel gu rëy sunu sëriñ ba sëñ soxna bu it dafa am lu mu daan wax sëñ muro bi mii tey te loola ñoom ñi sëñ bu jur ñépp koo ci xool gis ca loola daf ko daf ko daa wax ne ko Mamadou sa baat bi baatu barkeelu la ndax sa baat bi daa niroog baatu sa góor ga sa góor ga it baatam niroog baatu góoram ga

muy suñu sooy bu <laughs> kon nag mën sant la def man nag mënuma koo fay ndax fi mu àgg man ak li mu jëf ak man te yàlla képp tax ak fedd li kóllëre rek sëriñ bi ndax jël na doomi boppam séddee ma ko mën mii fii nu toog fi laa doon mayee xale bi te du te lépp dama ko jëbal te non rek la suñuy wajur melon nak ande ko ma di la xamal nak serigne bi ne la fuma meuna nek yaay sama kilifa ci serigne touba te nanguna ko xol bu sedd lepp luñu sant talibi boma ko waxe ma def ko lol nak kon yeen ñi ma fi tassel ngeen gën a góorgóorlu lu ci nit am rek da koo ndax liko def moy serigne bi xam ngeen fim jaar ak limu daj am limu am kon ku bëgg ci la mu am nak, da ngay nangoo sonu ak pastéef bu wér te ku sàkk ko nak bu ko defé dal di koy am kon nak serigne bi ñu ngi lay ñaanal yalla ak bokki talib yi ñu fi dajel yépp yalla seen faj seeni ajo te lii ngeen def bu ngeen delloo ngeen gën a takku gën a doon benn gën a wéral Pastef yi ci moom mii ndax bu ngeen ci ngoyee te jàpp ko te dox jëm ci moom lu ngeen bëgg ci sëñ Tuubaa rek dana leen fekk si te nattabliwuñ ko jërëjëf Bir